Bye. Assalamualaikum. man ma ngi tuddu Khadijatou saw ñu gën ma xam ci saw ah, ma bok ci ben réseau buñ taxawal bu yagul réseau bi nak mu ngi tuddu sa alal ma dugg ci and sek sama présidente buñ nane Awa saw ñu yor suñu daaira buñ tuddé Fatmata Bintu Rasoul. kon dal buñ déggé manam daaira bi mo leen fi indi. daaira bi mo ñu fi indi waaw. d'accord ngeen ñew doon jappal si eh, ki nga xamanteni ni président Macky Sall. waaw dañu ñewon pour jappalé président Macky parce que gis nañ li muy liggéey ci réew maanaam dañu jóg daal pour jàppale Amadou ot waaw Amadou Hott nag ñun ki mobilise jigéen ñëpp tey mooy Adja Maimouna Dione Maimouna Dione nag borom këram mooy tudd Thierno Diop na Diop nag mooy jàppale Amadou Hott moo waral mobilisation bu réew bi tey salaamaaleykum man maa ngi tudd Mary Diagne Mary Diagne laa tudd dëkk Afia route de Boune Kathia Waly Faye maa ngi leen di nuyu di leen sant kontaan naa lool tey ndax nag wo kon nag li am te wóor lii ñu am tey bu fekkee ne ma ma ma maa leen di gërëm rek xaw ma lu ma leen di wax parce que nit ki moom boo nekk say naw la ñu jël lépp delloo la ko doo xam loo leen di waxaat maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp mag ndaw ñoom ñëpp li am te wóor nag mooy lii ñu lii tey yar nañu yàlla may ñu yeggale ko si jàmm loolu daal lañuy ñuy ñaan tey sant ñëpp di gërëm ñëpp may mu nag gërëm nañ ko gërëm nañu Thierno ndax nag mënoon naa bañ a déplacé fii ne diggante bi daa sori waaye daal taal oto bi ñëw ba si ñun ji jaajëfi ñëpp ña fa teewoon mu jaajëfal leen te loolu rek honneur la ndax du ma maa fa nekkoon taliba bar nañu fa nekkoon waaye lii ma am tey ji nii ah maa ngi sant yàlla doole si la ma ko santoon de

su diggante Maymuna jógal yëngu su diggante Maymuna jógal yëngu waaw sama digganteeg askan bi sama digganteeg waa yëmbal lu nu liggéey démb la toogunu ba tey mobilisation nga jóg taxaw ndax dañu yor réseau réseau de 151 groupement kon xam nga ne kooku tey su bëggoon 3000 femmes 5000 femmes suñ ko bëggee dañ koy am démb 10 heures la ñu décidé pour dem place de l'Obélisque dama ne woon ñetti kaar ba may laata jóge foofu douze kaar taxaw na kon loolu dañ koy liggéey démb te tey doog a ñëw fekk nag nit liggéey groupement ba mu noppi nga ñëw ne ko dama lay seet si pour récupérer ko du yomb ñun suñuy groupement dañ ko rampe liggéey ko démb tey doog a ñëw loolu lu ñu liggéey la daaw daaw suñu kees yi taj taj nañ 34 millions te ren ñu koy wàcc ñu ngi ci 52 millions kon xam nga ne loolu ñun caaxaanuñu dañuy liggéey bu politique ñëwee nag ñu ànd ak moom politique ndax ku politique du la nga bëgg doo ko am bu politique jeexee ñun jigéen ñi nag ñu continuer di liggéey suñu liggéey yal nañu ko yàlla def. jigéen ñi ànd ak yow ak waa gox bi am na yan kàddu nga leen di gën a ñaaxaat. ak euh, tàggatoo ak ñun. sa kàddu di leen di leen gërëm aw ma seen fay boo leen wooyee guddi ñu jóg boo leen wooyee ba bëccëg ñu jóg dem naa ba madame Faye tuddee ma woon madame mobilisation loolu nag képp ku ko mën ku ne dan koy liggéey démb tey doogu ñëw ñun fayuñu kenn dërëm jaay nu kenn deureum ñun ñi lañu am matalé wuñ ko sax tay ñi mer tok seen kër yu ñoo upp sax ñu génn kon loolu yalla nañu yalla jappalé ñuy am yaakaar tamit ci ministre Amadou hot na jappalé jigéenu sam sa alal. deug la jigéenu sam sa alal recevoir na ñëpp ba mu ñoom waye ñun méré wuñ ko ndax ñun moy mom yalla nako yalla jappalé yalla nako yalla lafal. ñu lay gërëm di la sante ci and bu rafet bi nga àndaloon nak seen chaîne de bi Cap TV nga sanni ci baat chaîne bi nga xamanteni moy mooy Cap TV. Cap Cap TV. voilà Cap TV maa ngi leen di suivre di leen ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm di leen ñaanal seen lii yal na yal na doon ay télé télé yàlla mën na ko yal na ko yàlla def parce que tamit lii dafa am solo euh, lu mel nii ngeen ñëw couvrir ko loolu ngeen nekkee ci askan bi di génnee lu leer di wax lu leer seen écran benn la yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla defal jàmm.